ñàkkul sax dina am yeneen université yu leen ko ñeewee parce que wax deug yalla tabaxal nañ leen bâtiment yo xamné dafa baax pour ay bureau pour bu ñuy jàng ak fu ñuy jàng waye xam nañ aussi ne université du rek ay bâtiment yu baax ñom amna ay problème yu fa nekk bañu waxtaan ak enseignant yi waxtaan ak recteur yi waxtaan ak personnel bi waxtaan ak étudiants yi waxtaan ak ay syndicat xam ni ñom comme yeneen université yi nekk Sénégal am problème manam am problème budget parce que li ñu yor ñu jox leen comme état ñun jox comme état du mi nga pour 2024 donc gouvernement parce que xam nañ ne ñun du alal ñuy pour ko mais alal la parce que dañ ko soxla te buñ leen ko joxul année bi responsabilité Sénégal am ci ay résultats ba ñu jógee foofu itam ñëw nañ ci campus social mooy course bi fu mu nekk foofu aussi visité nañ ko gis nañ ne étudiants yi en tout cas ci la ñuy lekk ak la nga xam ne fa la ñuy fanaan gis nañ fa ci liñ ñu wan ay conditions yoo xam ne baax na directeur de course bi bu ñu ñëwee déglu nañ ko mu def présentation am gis nañ effort yi nga xam ne moom yëpp mu ngi koy def syndicat yi déglu nañ leen ñu def seen ay doléances problème yi dëgg nañ ko gis nañ ko dégg nañ ci problème budget aussi alal di ñun war a dolli pour ñu continuer fonctionner problème transport problème logement social problème ay infrastructures sportives yoo xam ne pareegul pour que personnel bi ak enseignants yi di ci mën def sport ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp nag c'est pas des problèmes yoo xam ne Amadou Mahtar Mbow rek moo ko am yeneen université yi am nañ mais parce que Amadou Mahtar Mbow am na ko aussi dinañ ci def focus maanaam xool nan lañ koy régler

ñàkkul né université bi fi ak quelques années du am université bo xamné moko gën ci Sénégal parce que tabax bi rafet na ambition bi ci Sénégal rafet am rafet na xam nañ ne ku leen pousse tuuti dina nek université bu mag té bu nekkee université bu mag Sénégal yépp ñoom ñoo ci gañ